dama bëggoon euh, ci turu ci ndigalu Alioune Sarr ministre tourisme ak transport aérien euh, ma remettre leen chèque symbolique bi bu 18 millions 300 euh, pour ngeen mën a feetu bénéficier aussi ci lu mu gën a tuuti tuuti tuuti xaalis pour tabaski bi bi ñëw ministère bi nag da def régulièrement chaque fois que boo amee ay événement Euh, mu dimbali travailleurs yi nga xam ne ci fii lañ nekkoon euh, ñu ñu ñaan aussi tamit ñu nekkaat fii tamit euh, xëy na situation mooy tax tamit que travailleurs yi ñenn ñi am difficulté ñii di liggéey ñi am difficulté mais ñi am difficulté tamit ministre bi jóg na taxaw pour jàppale leen jàppale leen cadre boobu la la taxawee mu koy def nag ci tour gouvernement bi ci turu président Macky Sall mi nga xam ne dafa jël volet social def ko. Euh, maanaam ci yi ko gën a yitteel donc loolu moo ko waral may rappeler rek na Sénégal Airlines euh, bi mu déposé bilan bi je pense que c'est en avril 2016 euh, depuis nag léegi ça fait ñeenti at ñoom ñu ngi ci difficulté yooyu de temps en temps nguur gi jàppale leen de temps en temps aussi syndic bi léegi laa ko yëg sax d'ailleurs syndic bi itam jàppale leen de temps en temps ñu ngi def ndànk-ndànk. ah mais euh, ñu ngi ciy liggéey jaw man amaguma rapport rapport syndic bi bi nga xam ne mooy clôturer la liquidation. au delà de appui yi ñuy def ak liquidation bi nga xam ne moo nekk ñoom ñu compétent lañu moom wax na ko euh, expérience euh, ñoom ñi nekkoon ñooñu il faut nga am diplôme bu rëy il faut nga am qualification pour nga def ko donc ñoom am nañ compétence boobu li ñu jot comme instruction bu jóge ci nguur gi président de la République ak ministre transport et nag maanaam mooy ñu réintégrer travailleurs yi nga xam ne ñu ngi ci société yi nekk en yi nekk en liquidation te c'est des travailleurs travailleurs yi nga xam ne dañu am seen i dañu am seen compétence donc ci loolu la ñuy taxaw am na ñoo xam ne nag ñu ngi liggéey déjà parce que chaque fois que bu ñu créé benn compagnie li ñu njëkk mooy dañ naan ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii jël leen d'abord et chaque fois moom la def ñu bëri ñu ngi liggéey mais tamit ñi des tamit ñi nga xam ne jotuñ kuñ liggéey il faut ñu réintégrer leen ndànk-ndànk te loolu mooy volonté président de la République loolu mooy volonté ministre bi tamit tey maa si kàddu agent employé Sénégal Airlines pour euh, recevoir chèque bu ñu ministère transport aérien dimbalé si veille tabaski bi en même temps ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier bu baax parce que c'est pas la première fois que li ñu am chaque événement daañu gestu xol ban appui ban aide li ñu def ñu joxé en plus euh, m'a ngi profité aussi pour euh, pour les leen ñaax pour de leen ñaan ñu continuer di dimbali pour ñu recouvrer suñu montant indemnisation bi déjà euh, mettre en contact avec le ministère des Finances, en l'occurrence euh, l'AGE, agent du de l'État. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc nous continuons de les appuyer euh, pour que dans les meilleurs délais ñu mun a à suñu xaalis parce que nous savons que xam ngeen ni am qui suñu collègues yu bëri euh, ba léegi amaguñu te dëkk bi met met na boo xamante ni foofu de temps en temps su xaalis boobu duggee sax dina jàppale si lu bëri bëri bëri ñu ngi leen di ñaan daal si aspect social boobu noonu ngeen gën si mën a appuyer gëstu bu baax comme vous avez l'habitude de le faire quand même euh, agent wu Sénégal Airlines yi